non non parce que Bijou non non non. attends non attends attends mais problème comment on s'appelle quoi naka kay Keita Wa jooju waaye CDC. mais pourquoi il se permet mais pourquoi mooy kan ba war a taxaw ci télé bi naan day menacer Macky Sall. il est qui lui parle la kan mais c'est quoi ce délire là dans ce pays là. tu es qui pour menacer Macky Sall. non mais attends ce pays là mais mais attends mais il faut que les gens arrêtent. Macky Sall nek président Sénégal pendant douze ans ñoom ñu nek prison ñoom ñu nek prison Motax amu amu passé FNC je me demande xaw ma ban façon nit la. tu es complètement en dehors du jeu. Macky Sall contre l'avis de son camp Manam ñi mu bokkal nguur ak parti ñepp bañ Macky Sall def leen tête genn la prison boole la ci élection yi sekk ak yow lu bari nak lu nit ñi xam lépp parce que fi dara du fi umpe. jox la nguur gi six mois après mu bëgg a ñëw nga ni ko doo dugg ci kii bi boo duggee ci kii bi dama lay def c'est terrible au nom de quoi lan moo tax Macky Sall gis nga su ma doon Macky Sall avion de ligne laay jël wàcc aéroport AIBD jaar fi nit ñi di jaar maanaam jaaruma salon de la jaaruma dara fi nit ñi di ñëw la di jaar laay jaar génne sama trouleur dugg ci teer bi ba géejawaay ma wàcc wax ak sénégalais yi su ma fa jógee dugg ci BRT bi ba arrêt bi gën a jege Mermoz ma taxaw ci oto autopont bi mujj sama oto jël ma fa yóbbu ma sama kër déggoo ma de dégg damay dugg ci BRT damay dugg ci teer bi ba Pikine damay wàcc dugg ci teer bi ba wàcc mitin pare fa jël BRT bi ba autopont bi mujj ci autopont la wax de xam nga autopont yi mm. ma wàcc foofu ci suufu autopont bi jël sama oto dox ndànk dugg sama kër dara du xew biir dara ñii oh. xoolal moomuñu nit ñi moomuñu réew mi parce que non xam nga tax ma la dara du xew àdduna mm. bi ku yaakaar ni mën nga fi def lu la neex mooy tu n'as rien compris ku yaakaar ni Macky Sall dafay ñëw fii ci réew mi Sénégal nit ñi sur la base de li leen neex rek ñu jël ay affaire sauf que ko non non non ne dañuy entraver lépp mooy ils n'ont rien compris bisou yor nguur ça pas dire que mën nga lépp de il faut ñuy xam ko dama leen bëgg a dimbali man moom man moom ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette haine viscérale envers Pastef quoi mais ban haine ne dañuy analyser wala lan est-ce que man mos naa saaga Pastef. déedéet xam nga ñoom dañ doon saga waaw mais façon bi ngay waxe non defal naa defal na non defal na xam nga passé yow en en deug ñom un an ci digënté bi xanaa nag haine deug dëgg mooy Pastef. ñom ñoy saga ñom ñoy xasté man est-ce que mos na saga Pastef mos na saga kenn ci Pastef. mais chef lan moo changé parce que bi Ousmane Sonko di présente livre la solution. bokkoon ci eh, journaliste yu toogoon lan mo changer changer ci lan. lolou da ma fatali sax.

man li ma wax lépp est-ce que dama fen wala dama saaguma kenn sosuma kon ñoo ko déggandoo Cheikh Yérim Seck réaction am na nee na vraiment waa Pastef ñoo yabaate te dëgg naa ni foog dëgg yàlla yabaate la Macky Sall di sénégalais servir Sénégal pendant 12 ans guen Sénégal di dellu soit ñu ne dañ koy japp pour lan pour des raisons politiques Macky Sall mooy kii ñëw Sénégal wacc aéroport du jaar salon d'honneur jaar fi nit ñi jaar dugg ci terre bi dem ba Guédiawaye wacc jël li nga xamante moy mooy BRT bi dugg wax ak sénégalais dem seeti kilifa dina yi amul kenn ko ko mëna téré texe ni Macky Sall liggéeyul ci Sénégal tay lo xamante tay tey mën nañ ko japp su wacc aéroport d'autant plus que ñëpp ñoo xamante muy responsable 86 morts yi nga xamante amna am de mars 2021 ba 2024 ñom ñu nekk ci palais de la république kenn attewu leen kenn jugé wu leen kenn toppewu leen dara ci ñi gis ni que lépp lo xamante ne wax nañ ko fi jëmele ko ci ay violence jëmele ko ci appel à l'insurrection ñooñu ñoo mën a nekk tay ci palais de la république di gundaandaat ci alalu sénégalais waxutuma la nak ki nga xamante dafa servir Sénégal ci fukki at ak ñaar bayyi Sénégal ci lépp lo xamante dal moy ay signaux vert la ñi ñëw ci juroom benn weer yobbu ko ci signaux rouge ba palé neen dañuy japp ki nga xamante mo def résultat ñi bayyi ñi nga xamante ñoo gëna a ndax ndaxte juroom benn weer yi amul sénégalais bo xamante gis nga sa bop ci réew mi mu doon ay jafé jafé yo xamanteni sénégalais yi ñu ngi koy dund partout en tout cas muy réaction Cheikh Yérim Seck à bon entendeur salut